Rewmi 24 TV. bisimilah dal leen ak jaamoo ci xibaar président Ousmane Sonko mi nga xam ne rek moom la ñuy woowee. Ousmane moo sell mi mi nga xamee ne rek loxoom dafa sedd ci Ousmane mu sell moom nag moom rek moo defati miracle boo xamee ne rek jamono yi ñu bari rek loolee daal dina leen jaaxal manam ab kër la boo xam ne kër gi dafa tàkk tàkk ba jeex tàkk ba lépp lu nekkoon ci kër ga rek daal daal di yàqu waaye gis nañ ne photo Ousmane Sonko boo xam ne rek ñoo ngi ko takkoon ci kaw photo boobee rek lakkul mu jaaxal ñu bari bari photo ba nga xam ko koo gis rek da nga gis Ousmane Sonko jëmmam ji yëpp daal di génn mu doon ab miracle boo xamee ne rek ñu bari rek ña nga naan rek kii rek nitu yàlla la kii daal ku sell la ginnaaw ba nga xamee ne rek kër gi daal dinañ lakk yeneen ko gis noonu lakk lakk ba jeex tàkk ba euh, yépp dindeeku waaye rek photo Ousmane Sonko ba ña ngi koy filmer rek di wax ne lépp lakk ba mu des Ousmane Sonko mi kon daal lii jaaxal na leen trop kon mi nga ko président Ousmane Sonko mi nga jamono yi ma nga ci hôpital euh, principal askan bi yépp rek di xaar ñu daal di koy euh, libéré moom moom nga xam jamono yi moom rek moo yee yi rek def li nga xamante jamono yi képp kuy nekk bitim wala ci Sénégal rek sa xel senegal Sénégal développement rek la soxla moom mii di président Ousmane Sonko di ko naanal di ko ñaanal jàmm kon boo ko mi ngoo ko kër gi nga xam ne daal dafa lakk jamono yi photo Ousmane Sonko ba fa nekkoon moom lakk